lépp dafay saf wax dëgg yàlla neexaay bi mu ñu ci indi waaye nag am na ñoo xam ne dañuy tuddoo baay bëgg li ëpp njëriñ ci baay ñu tàggale moom te ñu ngi wax fii ci ay youtube ak yeneen di wax ne baay jotewul dara ak doomam yi ak sëtam yi te dañuy fen ndax bàyyi moo bind ci boppam ne ku ma gis mbaa nga gis samay doom te dégg nañ ci ak seeni doom gis nga ma te dangay texe nger man waaw kon nag sëriñ bi euh, nañu delloo yee fii ca fa mu nekkoon ñu xam ne ñii am nañ loo xam ne bu doon jaay ay milliards duñ ci jot waaw am na ñoo xam ne jaral leen fay milliar ngir ne doomu baay te mënuñ koo do taxut ñu do ko loolu nga xam ne nag yàlla daf koo maye moom lañu fi dese may dellusi si di wax ne fii ñu toll nii mbirum mbaay wër na àddina anglais yi ñu ngi koy wut te anglais yi pare nañoo fay pour dégg olof mbur buñ déggee waare baay yi baabala mi doon léegi ñu mën ko ñu mën a xam li wax lan la hawsa yi noonu allemand yi noonu français yi noonu soo mbokki naar yi noonu kon nag nit ki lu la jomb mën na laa yomb waaye nag bu mu nga xam te nangu ne lii fa jomb ñun bàyyi foo waroon a feeñee feneen ñu dugg ay oto ak avion di dem di ko wuti yàlla baax nag mu wàcc fii te ñun kat li ñu xam ci baay mooy li ñu wax ci boppam waaw mu ne wa kayfa laa wa ayni l yowma aynu muhammadin qad sara sirruhu fi haykali wa riwaay loolu nag am na firiin woo xam ne nongu na ko waaw bu bu bu ma ci jóoma itam ma wax suñ sëriñ baabalin bu ma gàggante na bàyyi noonu rek te mooy lan mooy rek maa yónente yónente man ku ma daj daj nga yonent bi ku daj yonent bi daj nga ma du ñaar kenn lañu loolu mooy firi ne xarsara sirruhu fii haykali wariwaayi loolu boo ko doon firi coolo maa di manam maa di moom maa ko jaaxle ana moom bàyye ngoog yonentu baa ngoog sallallahu alayhi wa sallam مولاي صل وسلم دائما ابدا على وسلم دائما أبدا على حبيبك